noo ngi leen di nuyu lu bare bare yéen waa académie mi di nuyu sëñ taxa njaay mi nekk ci bopp bi di rafetlu bu baax itam liggéey yu am solo yi nga xam ne boobu ba léegi yéen a ngi koy def yi xew ngeen di ko jàllale ngir nit ñi man di am ay njàngat yuñ ciy def di ko rafetlu bu baax suñu ñaan suñu boroom mu nangul leen seen liggéey yépp seen yëngu yëpp mu nangul leen ko te barkeel ko bi jaaxi xaadimi rasuul yi di ñaan suñu borom fekke loonu ay déwén yu bare bare bare yàggal fi lool mu gën fee yàgg lool lool lool ba yàgg gi doon kéemtaan ci Cheikh Mouhamadul Mountakha te lu mu fi gën a yàgg rek na ko wér gi ëpp suñ boroom bàyyi kookum xelam ba li mu yéene lépp mu def ko ni mu ko yéenee ci barkeb Sëñ Tuubaa ak i ngëneelam ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen uh, nuyu nag ci turu ñi nga xam ne ñooy kilifa ak ñooy kilifa yi daaray Maam Jaara suñu sëñ Abou Madiane Jaxate mi nga xam ne moo waroon a teewe jataay bi te ngànt tax mënu koo teewe soxna maam Awa Dem mi mu ko siqal di nuyu njabootu nafsi wa diini muy njabootu Cheikh Mouhamadul Bachir gi nga xam ne ay góor lañu ak jigéen di ay sëtam yu koy liggéeyal liggéey yu ama am solo liggéey yu bare bare bare ñu siyaare góor ñi di siyaare jigéen ñi di nuyu soxna Ndey Mbàkke mi nga xam ne nag ci wetu jigéen ñi dañoo seq ak daaray maam jaara ay liggéey yu bari ay liggéey yu am solo booba ba tey mën naa ne bi seen mbooloo mi sosoo ba tey ñu ngi jéeg ñu ngi jéggi ay jéego yu sore sore sori ci liggéeyal daaray maam jaara euh, di ko def defin wu rafet rafet rafet di jël seen alal di ko fi indi dafa indi ceeb dafa indi saabu daanaka yiñ fi indi bari na bari waay goo xam ne li mu wut loolu nag cant gi ñu leen war a sant daara maam jaara lott na ci waaye lim ciy lott lot lott sañ nañoo ñaan sañ nañoo gërëm itam kon képp ku yeewoo daara maam jaara li ko tàmbalee ci kilifa yi ñi fiy jàngale ba ci ñi ñuy jàngal ameel nañu ay cant ak i ngërëm mbooloom nafsi wa dini muy góor ñi ak jigéen ñi waaye ñoom nag defe naa ne li leen gënal mooy waa nafsi wa dini li ma jort ne moo leen gënal mooy ku leen ñaanal ñu gudd fan te wér te di ko gën a man waaye soxlawuñ ko leen sant foog naa ko ndax li ñuy def ci daara yi maam jaara su fekkee àddina bépp ko war a def maanaam jël sa alal indi fi di fi def lu baax su fekkee àddina bépp a ko war a def wolof nee na mbay ci sa tànk ñoom kenn waru leen cee jiitu daara yi maam jaara poroxaan la nekk poroxaan ndénkaan la ndénkaan li ki ko dénkaane muy Cheikhul Khadim Serigne Bassirou la ko dénk doonte ñëpp a ko bokk loolu am na waaye ñi ko bokk ñépp sëñ Bassirou leen fi nekkal moom la fi sëñ Tuubaa baloon dénk ko dëkk bi ci toppatoo ko ngir jëmmi soxna si fi tëdd loolu nag coono yi ci sëriñ basiiru daj ci wéttali soxna jaara tey jii xam naa ne sëriñ Basiru suñu borom won na ko ne soxna Jaara ma nga doon wetti li ji wéetatut fi mu ne sëriñ sonn na lool bi fi ñëw àndut ak mbooloo àll bi fatt na waaye ñëw na fi fanaan fi ba bët set mu xëy feeñal yéeneem ju jum am ci dëkk bi mel ne Touba loolu la wax yéene jooju nag bu fekkente ne bi dañ koo waroon a yéene ji dafa doonoon jëmmi nit yoo xam ne dafa war a amug ruux di dund yéenay sëriñ Basiru jooju mooy daaray maam jaara mooy ruux gi koy dundal ndax mel na Touba gi moom ku ne xam ne ne Touba dëkk la boo xam ne li tax Sayxul Xadim sanc ko mooy dëkk bu mu mën a jaamoo yàlla def ko muy dëkku xam-xam kon bu sëñ Basiru ne fas naa yéene mu mel ne Touba loolu mooy mi ngi ñaan sama borom poroxaan doon dëkku xam-xam ah mu tàmbali nag am projet wu dëkk bi mel ni dëkk war a mel yéene ju ne mu am ko ba bi mu làqoo Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir mii di taawam teel a xam yéene sëñ Bachiru ci dëkk bi mu ànd koog ñi mbokkal sëriñ Bachiru ñoom ñëpp taxaw ba dëkk bi doon ab dëkk ni ko sëñ Basiru bëgge woon yàlla taw feexal ko mu am xalaati ne soxna jaara su fi nekkoon ab yarekat lay doon ab jàngalekat lay doon ndax boroom xam-xam la ni ko way juróom yépp doone mu ne ab jàngalekat te di bi yarekat nag boo koy wutal barab danga koy wutal barab bu mën a yare ñamu yilif walla ñañ koy jox mu dal di koy sosal daara yi maam jaara bi mu sosee daara yi maam jaara indi fi ay turandoom yoo xam ne soxna jaara lañ leen tudde ñu war a dëkk ci biir daara ji ñu war leen a dundal war leen a woddu war leen a faj war leen a jàngal añu daal di xam ne kon loolu ay taxawaay la laaj sunu boroom daal di koy gàttandu ndax yàlla làmb na xolam ba gis ne yéene ju sel ju dëggu ju wér moo ci nekk sunu boroom gàttandul ko boppam nag ci fexe ba sampal ko yéenam jooju ci lam fa bëgg lépp di fa am alhamdulilahi alamin boobu ba léegi daaray maam jaaral la fa war di am lépp ma nga fay am yéenay sëriñ Moustapha ju dëggu jooju tax nit ñi wut si ko ak seeni alal ñoom it ak seen yéene yu rëy muy daayira maam jaara yi ba ci parrainage bi suñu saaxa mujj xalaat muy jeneen doole ju dolli ko ci kaw doole yi daayira yi muy loo xam ne kon kenn ku ne da nga jëlee fu ne sa yëf indi fi loolu nag bu fekkente ne bii àddina bépp ko war a def waa nafsi wa diini ñoom li jiitu ci ñoom mooy xam nañ ne ñi koy def ñoom lañ koy defal ndax ñoom ñooy ñi ko war a def ñu dal di futteeku nag. xam na ne léegi lii nag li mu doon mooy istibaq ilal xayraat maanaam njëkkante jëm ci lu baax ñu ne ñoom kenn du leen ci jiitu di jël seen alal di ko fi indi boole koog luñ fi indi xeeb ko dangay mujj sax boo gisee ni ñuy ñëwee ñëwin wi sa yaram day daw ndax bu ñu bu ñu indee dara mu bari lool diggante bu gàtt bu ci dara dolli ko dangay gis keneen leneen leneen la ca dolli ko nga gis ci ñoom ñu ñëw indi ko soxna Ndeye Mbacke ñëw na fi ànd ak ay bokkam soxna Ami Rama ak ñeneen ak ñeneen indi fi lu bari ci seenub liggéey ñu ne diis ñu bàyyi fi seeni rak soxna jabaaram Cheikh Mouhamadul Mountakha ak soxna Mariamu daal di ñëw ñoom it indi leneen duñ tàyyi kon ñoom yëg-yëg bi ñu am mooy doxuk daaray maam jaara ñoom ñoo war a ne ca bopp ba ngir daara yi maam jaara di dox rawatina nag ñoom ci biir njaboot gi ñu xam lañu ca doon damay wax ne yéenay sëñ Basiru jooju ñoom seen jëf yi nii dafay tabbi ca la sëñ Basiru yéene woon mu mel ne kon ñoom gàttandu dañ leen a gàttandu ak tawféexi sëriñ bi ba loolu rot ci seen xel seenum xel ñu xam ne seeni liggéey la ca war a jiitu mooy liggéeyal soxna jaara ci dëkk bi ndax soxna jaara soxna jaara ñëpp la ñëpp a ko bokk waaye ki nga xam ne moo ko gën a jege ñëpp moo ko dénkaane bi mu koy dënkaane sëriñ Basiiru la ko dénk sëriñ Basiiru nag futti ku moom it fexe ba ndénkaan li mu sàmm ko kiñ ko dé kiñ ko dénk wettali ko tey ji ku fi ñëw da nga xam ne wettali ko moo tax nafsi wa diini seen liggéey yi lu ñépp war a gis la teg ci bët xam ko xam naa ne seeni jur seeni xol sedd na ndax lii moom ñoom lañ ko defal ñoom ñi leen meññ lañ ko defal taxawaay bu rëy rëy la ñu am ci noonu te taxawaay bi xam nañu ko xam naa ne bu nu ko temps bi mayoon danañ leen détailleel liñ fiy indi lépp boobu ba léegi waaye du ko jar ndax suñ boroom mi tax ñu di ko def yàlla mu ngi ciy teg bëtam sëñ Tuubaa mi tax ñu di ko def ngir jëmmi soxna si mi ngi koy gis soxna si ci boppam mi ngi koy gis Cheikh Mouhamadul Bachir mii seen maam nga xam ne lu fi waay def ak foo ko mën a def ci dëkk bi ak foo mën a bàyyi ko def ko sëñ Bachir nga ko defal mu ngi ciy teg bëtam kon daairatu nafsi wa diini damay wax ne seenu tur ni ko ni ko ni ko sëñ Tuubaa tënke ci xasida gi ñoom jëmmal nañu loolu ci seeni jëf nafsi wa diini fumma ahli walwalat wa maskani laka wa diatun abat ndénkaan kon ñoom xam nañ ne li ñu yor lu ñu leen dénk la dañ koo war a joxe ci yoonu yàlla moo tax ñu futtiku jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla te bu fekkee joxe ci yoonu yàlla ñëpp la war kenn warul lañ caa jiitu alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu xamee ne ñoom li ñu yor alal yàlla ñu delloowaat ko sunu boroom fa gën ndax liggéeyal yàlla nit ki mën na koo defee ci wet gu nekk am ci yool bu kawe njort bu fekkee yàlla tax waaye su ko jaaree nag ci liggéeyal ko ci alquran foofu la gën a gaawe rawatina alquran joj ci biir sëñ Tuubaa nga ko nga xuus liggéeyal ko ci alxuraan loolu moom yool ba suñ borom képp ay xam ni mu toll ndax da fekk ci ñi gën maanaam ñi ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxañ baaraam wax ne ñoo gën ndax la ñu nekk gën nga ngay liggéey ci ñoom kon nag dangay ngay daal di xam ne yaa ñoom yéen a bokk wàccuwaay ndax bu fekkente ne bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ki gën ci yéen ki gën ci nit ñi mooy ki xam alxuraan ba noppi di ko xamle kooka ka yam ak moom daraja mooy ka ko fekk si ci ay ndax kiy jàngale alxuraan nit la ne nit ñi dafa am ay soxla war koo lijjanti ji ki ñuy jàngalit nit la nit ñi li nit di soxla daf koy soxla kon yow mi yàlla taw feexal nga mën a jàng alxuraan sax niñ ko mane ñoom man koo jàngale niñ ko mane ba noppi wëlbatiku jël sa wërsëg di leen fekk fa ñu nekk di leen ko jox loolu la nga leen ëppalee bari na waaye bu fekkee mënoo ko it mënoo jàng alxuraan mënoo koo jàngale waaye jël nga sa alal joxe ko ci yoonu yàlla ngir yàlla di ko jàppale ñiy jàng alxuraan dañ lay yëkkati ba nga tolloog ñoom daraja kon xayriyatu bi man man man man man man taallama alqurana wa allama xayrukum man taallama alqurana wa allamahu xayriyatu boobu duñ ko tënk yemut ci ki jàng kiy jàngale rek ak ki ñuy jàngal waaye yow mi koy fekk si ba mën a taxaw samp ngir jàng nag na la wóor ne moom may jàngale ëpp la bu yoon ndax lëm mënta ñàkk yaa ko ca wuutu ba mën a am daluk mën a toog jàngale nga def ko ci sa alal loola it di di di di meneen mbir wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fiihi nga ma li la yàlla jox nga delloo ko yàlla mi la ko joxoon wa aatuhum min maalillahi alladi aataakum almaalu la alal ji alali yàlla nga delloo ko yàlla loolu moom leneen la beneen bi mooy lu am solo lu ci sëñ Tuubaa wax ci ci joxe sa alal ci yoonu yàlla yim man yim man bari lool waaye waaye ñu xool ci yii mooy sëñ bi nee na dana guddalu fan dana yokk wërsëg dana far ay bakkaar dana tàbbal nit aljanna lii ñuy joxe nag kon ñoom ñoo ñi moom hadiya lay doon ci soxna jaara ndax buñ ko defee ci daara yi soxna jaara rek soxna jaara lañ ko dox te soxna jaara hadiya lañ koy jox sëñ bi nag dafa wax ne hadiya dana def yii ci nit bu fekkee amoo amoo woon dara dana tax nga am dara soo amoon dara te bariwut dana ko baril su baree te barkeelut dana ko barkeel kon yaakaar naa ne ñoom seen jëf ji ay jëf la yoo xam ne ñoom xam nañ fi ñu jëf jëmee te loolu rek mooy li am solo ndax àddina kenn du fi sax alal jot a dajale ni ko Sëñ Tuubaa waxee su fekkee da nga ko da koo dajale te joxewoo ko ci yoonu yàlla njariñ newu ca laa taxtarir bi xopaamin anta tatrukuhu lil waarisina ka ixwaanin wa wildaani baatub waru la sëñ bi teg sax alal jooy dajale rek te yàlla taxut dañ koy donn ëllëg ña koy donn xamoo lu ñuy def ca alal ja te wërsëg ak alal dañoo bokk wërsëg mooy li nga jeexal ak noo ko mën a jeexalee mu mu seey ci yow moo xam ci yoonu yàlla nga ko def wala danga nga koo lekk wala dara loolaay wërsëg waaye li nga fi bàyyi alal la tudd boo ko fi bàyyee ëllëg dañ koy donn ña koy donn nag lañ cay def doo ko xam moo tax nag njëkkante jëme ci liggéeyal yàlla ci sa alal loolu ku ko xam ku ne danga ci góor góorgóor ñoom nag yoon waar woo wi ñu ngi ci bay bu baax a baax te ñiñ ko seqal xam nañu kon nag li may tëje rek mooy la ca suñ borom digee woon mooy lu am solo loo xam ne ku ko xam ku ne danga xam ne leb lenteel yàllaa ci gën suñ borom misaal nanu ko ci nawet bu taw ba tooy nga jël fepp dugub ji ko ci suuf mu saxal aw tan maanaam juróom-ñaari gubi dugub gub bu nekk téeméeri pepp dugub nekk ca loolu yàlla dafa misaal misaal rek la tëral waaye mën naa mat sax junniy pepp ndax baykat dëgg dana xam ne dugub lu mu nangoo di nangoo di moom wenn gub dana saxal lu ëpp téeméeri pepp masalul ladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabba wallahu yudaafiu liman yasha adaafan mudaafa kon jëf jëf booy leb booy booy leb lente yàllaa ci gën ndax na pay ga di toll leb lente kon ki koy def su bëggee njariñul tey ak ëllëg na ko séq ak sunu borom moo tax suñ Tuubaa daan wax ne ak njàmbaar mooy joxe sa alal ci yoonu yàlla loolu wax nañ ne sëñ bi waxoon na ko sëñ Aliou Touré ci am ganu naar ne ko teralal ma ko ñaari téeméer la soxla sëñ Aliou jox ko juróomi téeméer sëriñ bi laaj ko loo ci jublu mu ne ko ñaari téeméer yi mooy ndigal li ñetti yi maa ko ñaraasoo sëñ bi ne ko waaw góor looloo di njàmbaar muy joxe sa alal ci yoonu yàlla moo di njàmbaar waaye xuloog xeex luubute rek la kon nag yàlla na nu yàlla dimbali taw fee xal nu ba sunu yëngu yépp ñu jeexal lépp ci sëriñ bi te sëñ bi nangul nu lépp te bu mu am lu mu seet ca nangu ga kon waa nafsi wa wa diini daaray maam jaara ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di ñaan ci barkeb soxna jaara mi tax ngeen di ko def barkeb Cheikhul Khadim barkeb Cheikh Mouhamadul Bachir seen maam ji nga xam ne moo dundalaat dëkk bi ba mu egsi fii mu egsi barkeb seen way jur wa Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo xalaat daaray maam jaara ba sosol ko soxna jaara yàlla nangul ko ko di ko ci gàttandu barkeb Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak mbooleem seen way jur yi nga xam ne ñoom ñoo ko ànd ba lii taxaw yàlla na leen yàlla dëgëral sàmm leen aar leen